ndax dayoo sang bu tedd bi kilifa gi nga xam ne mooy cheikh Mouhamadul Mamoun ibnu Alaaji Ibrahima Niass du xam ndax dama war a wax ci moom en tant que chef religieux du ma xam ndax dama war a wax ci moom en tant que acteur de développement du ma xam ndax dañu war a wax ci moom en tant que politique parce que Serigne Mamoun yàlla dafa def mu làmboo ay casquettes yu bare bare bare macha allah. même damay tànn arbitrairement commencé nuyu suñu yaay Seyda Fat ndax tubaab dafa wax ne derrière chaque grand homme il y a une grande dame tey suñu déggee Serigne Mamoun ci àddina bi dégg ko ci senegaal dégg ko ci Afrique dégg ko ci anam bu nekk yaay booy sa liggéey la sa taxawaay la ci sacrifice yi nga def parce que ñun Serigne Mamoun moo ñu jur moo ñu yar nous sommes ses enfants spirituels ànd nañoo moom fu ne ci réew mi ak ci bitim réew xam nañu nu mu daan dundee xam nañu nu mu daan taxawee waaye xam nañu ni nga daan muñee xam nañu ni nga ñu daan bootee xam nañu ni nga ñu daan tettee xam nañu ni nga ñu yaatale woon ci kër ga kon nag yaay booy ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi lay wax merci beaucoup alhamdulilah maa ngi nuyu suma sëriñu tedd yi di ko commencé ci suma sëriñu bopp cheikh mohamadul quraysh ibnu alhaaji ibrahima ñas ibnu alhaaji abdoulaye ñas alkabir ibnu mohamad ñas ibnu gàjji ibnu bakari samba coro fal samba jay la ñas ñas kumba abdoulaye man bugguma kenn yow rek laa bugg utuma dara yow rek laa doon seet gis naa la dénk naa la suma bopp ci àddina dénk la sama njaboot ci àddina dénk la sama bopp ci àllaaxira dénk sal sama njaboot ci àllaaxira maa ngi nuyu doomu Cheikh Ibrahima yu tedd yi fi nekk Serigne Mahdi Serigne Sofi ak képp ku fi teew mais di beral nuyoo su may cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Mouhamad Zey cheikh Mouhamad Zeynab papa Sidi Arab di ko nuyu bu baax a baax di nuyu cheikh Mahi ibnu Serigne Aliou Cissé di nuyu Baye Mamoun ak njaboot gi yëpp alhamdulilahi rabil alamin Serigne Mamoun c'était un homme multidimensionnel kenn mënu ko natt ci benn anaam dundam gi yëpp daf ko sacrifier. dédié ko à la jeunesse sénégalaise dédié ko à la population sénégalaise mais dédié ko umma islamique ndax ñu ngi fàttaliku ba muy njëkk a taxawal ñaan yàlla yi nga xam ne moom lañ tuddee woon al-Quds muy ñaan yi ñu daan ñaanal waa Palestine yi nga xam ne waa Israël ñoo leen noot ci jamono joo xam ne Israël dafa dominer le monde kon nag loolu ku ko def. xam nañ ne kii dafa jël àddinaam yépp jox ko lislaam damay namm di waxtaan ci moom tuuti sëriñ Maamun yàlla dafa defoon mu nekk boroom fit gaynde dëgg dama toog bés mu ooma ne ma dama bëgg nga fekk ma bàjjul parce que yàlla dogal na man membre fondateur RP la j'ai été le premier responsable national des jeunes du RP sëriñ Mamoun jox ma ko ba pare nekk ma porte parole am jox ma kàddoom ma yore ko man kon damay wax lu leer lu ma xam ñu ñëw daje Gambie ñu ngi dal ci hôtel bu ñuy wax Holiday Suites mu ooñu réunion boobu jamono ñu ngi doog ubbi sa qu'on appelle les chantiers de Thiès Ablaye Wade war a jàpp sa Seck def ko ci kaso bi sëriñ Mamoun nañu la ngeen ci xam. ma ne ko sëriñ bi ah ñun de lépp loo dugg danañ ci dugg ànd ak yow waaye damaa bëgg lii bala nga ciy dugg nga seetaat ko bu baax a baax ndax ab lay Wade ak Idrissa Seck mi ku jàppale Idrissa Seck soo yeboo xam ne di nga xeex ak Ablaye Wade te nguur kenn mënul xeex ak moom ma ne ko olof nee na ku boot bukki xaj bëw la mu xool ma yëngal bopp bi ne ma xanaa su fekkee su ko gaynde bootul gaynde su ko bootee benn bukki du bu benn xaj du boobu loolu moo waral mu boot Idrissa Seck indi ko fii ba ci Kaolack ñëpp gis ko Serigne Mamoun Papa di wax na ko léegi ci ONG bu ñuy wax Rawdul Quran ci la dépensé plus de cent cinquante million poste de santé yi nekk ci Kaolack yépp mu jox ñu ko Omar Thiam nga feetoog ñu koy séddale benn par benn Serigne Mamoun et le sport li ma gën a frappé. mooy bi ñuy organiser journée nationale pétanque Sénégal yëpp dëkk bu nekk aye Kaolack war a aye naaru libaane yi def délégation fekkuñu fii ci kër gi ne Kaolack kat danañ ko forkuloo parce que amuñu moyen yu ñu dalalee gan yi jóge Ndar jóge ci Sénégal fu nekk te dañ leen a dalal fu nekk laaj nañ autorité yi fii ci Sénégal ci Kaolack kenn joxu leen dara Serigne Mamoun jël en charge budget bi ba mu jeex à cent pour cent ba ñu def. Euh, journée yooyu def championnat national pétanque fii ci Kaolack ba yàlla def ñu am ku ko gañe kooku mooy sëriñ Mamoun sëriñ Mamoun nit la koo xam ne sooy wax ci moom doo pare mun naa xëy suba ba jant bi so taxaw fii di wax ci moom te duma noppi mukk jóge nañu fi bés di dem dakaar bi ñu ñëwee ba ci puur bi puur bi nekk fii ñu tuddee Papa Cheikh ci Medina Mbaba mu am lu ñu fàtte mu ne Baba Niang dem leen ngeen jëli ko ndax bëgguma dellu gannaaw fa oto ba taxaw benn waay jóge fële ci àll ba di daw di xiixat ñëw ba ci buntu oto bi fëgg sëriñ Mamoun wàcce verre bi ñu nuyuwante ak moom mu ne ko sëriñ bi yàlla rek moo la indi sama soxna mucc na gannaaw suba laa war tudd te maa ngi ni aw ma benn dërëm. sëriñ Mamoun yëkkati lu ëpp 300000 jox ko ko mu xool ko ba mu yàgg ne ko alxuraan de yàlla da koo tëj ba pare waaye su ko tëjuloon tey tey tey tey sóoratul Mamoun dana wàcc kooku mooy sëriñ Mamoun donc yu bëri mu doon def noonu moo tax ñun ñu décider doon ay ndaw yoo xam ne ci yaram ci ronam la ñu yaroo tey macha allah ñu ci bëri am na ay cadre yoo xam ne ñu ngi ci. am na ñoo xam ne ñu ngi ci ministère yi am na ñoo xam ne tey ñu ngi fu nekk bi ñu dajee ñu ne tey ba fii ñu toll li tubaab di wax à titre posthume mooy Serigne Mamoun yàlla jëlee na ko fi waaye tey moom moom majoritaire ci Kaolack tey ku mu doon woteel fii ci Kaolack moom Serigne Mamoun dina la gañe même nekku fi parce que tey leader boo dem muy Mariama Sarr soo fa demee ña nga xam ne ñoo téye kàddu gi ñoo nga xam ne ñoo teye kàddu gi ci Mariama Sarr Serigne Mamoun moo leen formé. soo demee ci moom jaay raxma kazalika ko noonu soo demee Pastef gii nga xam ne barki démb la xew niti Serigne Mamoun ñoo téye kàddu gi donc foo dem Serigne Mamoun ñam formé ñoo téye kàddu gi moo tax ñu ne dañuy daje tuddee suñu bopp convergence pour le développement de Kaolack les enfants de Serigne Mamoun Niass ñu ngi nii toog dañu bëgg a dekkaliwaat la Serigne Mamoun daan liggéey ci wàllu social ci wàllu humanitaire lépp loo xam ne mu ngi ko doon def ñu ciy jéem di ci gëstu di ci wax suñuy wax mais dañu am li am solo loo xam ne dañu bëgg nit ñi xam ko parce que tey suñu demee ba ay Karl ay xalaatkat yu bëri am ay idéologie donc ñun aussi dañoo bëgg a taxawal ce qu'on appelle le mamounisme le mamounisme c'est quoi c'est le centrisme basé sur le social et l'humanitaire ñu ngi ubbi bunt yëpp nag képp koo xam ne soppee Serigne Mamoun nga képp koo xam ne Serigne Mamoun dina la teraanga képp koo xam ne bëggu nga Kaolack te doon fooglu li Serigne Mamoun doon def nga bëgg cee dugal sa loxo la ko dalee ci suñu papa la xalif général de Medina bàyyi ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu ñaanal ñu ubbi ñu suñu bunt du association politique nag mais association la boo xam ne lépp loo xam ne xadara bi mu ngi koy def danañ ci dugal suñu loxo. lépp loo xam ne Kaolack mu ngi koy def danañ ci dugal suñuy loxo du yàgg dara danañu ne benn programme boo xam ne moom lañ bëgg def kaw ci kaw lag te moom la ñuy tuddee Serigne Mamoun c'est ça le mamounisme Yousra ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax alhamdulilahi rabil alamina bi ñu ne ñu suñu sœur moo yore le parti RP ñu ngi lay ubbil suñu xol expertise bi nga xam ne moom la ñu am jëlee ko ci sa papa ju baax jooju relation yi ñu am jëlee ko ci sa papa ju baax jooju xam-xam bi ñu am jëlee ko ci sa papa ju baax jooju expérience bi ñu am teg nañ ko ci say loxo loo ci soxla rek danañ ci liggéey ak yow danañ la jàppale parce que amul kenn ku mun a defar Kaolack sans Serigne Mamoun ñun loolu lañ jàpp amul kenn ku mun a defar Kaolack te nitu Serigne Mamoun yi bokkuñ ci amul kenn ku ko mun a def kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim